len ak jàmm mbokki internet yi safo di setan Buzz mtv TV ak ngeureum ñen len ci si bi ngeen di tewlu sen bi eh, alhamdullilah bonne nouvelle comme president Ousmane Sonko jamono bi dara teguwutut ci kawam berage libéré rek lañ ko wara def amatul dara luñ koy topé ko ginnaaw bu ko nguuru senegal del bañ ginaaw rek ko bi nga xamne nañ ko Cour suprême ngir ñak and si dogalu ate. bi nga xamne nak kii di Ousmane Racine Thion dafoon na ko fële sa tribunal bu Dakar te mooy ñu dugalaat kii di président Ousmane Sonko si liste électorale yi ndax dañ ko daanoon li nga xam ne nag moo di ñaari atum kaso ba pare nag di ko toppi corruption de la jeunesse maanaam euh, loolu lépp nag léegi atte booba daal dinay niil moom président Ousmane Sonko jamono bi daal dañ ko war a libérer ak lu man di xew jëleen si dikk loolu lépp ak ay jàngat yu ama am solo te pertinente comme niñ koy faral di defee révélation yu pertinente comme saa su nekk rek ñu leen koy faral di dégtal ginaaw loolu nag am na ay wax yoo xam ne daat nay juddu si loolu ak ay coow moom président Ousmane Sonko euh, dañ ko war a libérer am déet loolu lépp dinañ si dikk ak euh, xew-xew yi nga xam ne daal jotoon naa aw jotoon naa am euh, tuuma yu métti métti yi nga xam ne teg dañ ko ko moom mi di président Ousmane Sonko mu nekk mbir yoo xam ne doy na waar lool mais daal. lépp mën nañ ne daal instant bi jeex na tàkk. ñiñ tëj kaso ñu leen tëjoon ñoo wax ne exemple defuñ dara parce que ay caaxaan rek la woon ñaar ñoo ne yëfi politique la dañ koy amnistie parce que mbirum politique la ñoom ñoo ko wax kenn wax loowu leen ko ñoom ñoo ne dañuy amnistie à partir de 2020 lépp lu fi jaar ci affaire politique. affaire politique la woon nag dëgg neexul tamit ñooñu buñ doonu woon candidat duñ dugg kaso kon nag ñooñu noonu tey ay gor lañ ay nit lañ lenn rek lañ bëggoon. jaar ci yoonu politique daagaan sénégalais yi pour ñu jox leen seen carte ñu gis leen ñu ne ñu duñ dem loolu rek la kon problème bi mooy kii fi andi yooyu yëpp mooy problème bu réew mi rek ñaa mais mën leen continuer tamit di joxoñ ñoo xam ne maanaam problème politique képp la woon leneen li nag moom kuñ bëgg a rendi nga ko ñaa nag dëgg neexul tamit lañ teg Ousmane Sonko yow buñ la ko tegoon kenn dootu la xàmmee ñaa dëgg neexul waaw dañ la ko tegul rek mais buñ la ko tegoon doo toog fii naan moo wax nangam wala moo def nangam kan ah, at bi yëpp dinañ la eh, dégg Père Niang ñu ngi lay ziar président moo ne lu jëm ba deux mille vingt et lu fi nekkoon ci affaire politique affaire politique affaire politique dañ koy amnistier kon affaire yu politique rek la woon ñaar buñ nekkuloon candidat la leen dal du leen dal affaire yu politique lañ wax lépp lu fi nekkoon affaire politique dañ koy amnistier kon affaire politique lepp affaire politique la woon ñaa euh, des fois dama nan yeen est ce que Ablaye Wade ngeen àndoonoon abla Wade dafa am lo xamne ne am lu fi yaq mais amna lo xamne ne wax deug yalla bu fi nekkoon li ñuy dund ni tay duñ duñ ko dund parce que nit day ñeme adversaire ay élection ñepp ñoo ci wara dem ñu dem jakarlo ji wa abla Wade bu meloon na Macky Sall Macky Sall du doon candidat mënon nako ko éliminer dès le début bu ko neexone ampleur boobu noonu Sénégal moom la waroon a continuer problème bu ay candidat problème bu voté wax dëgg yàlla ñi ko fi andi ñooñu fi andi problème rek du keneen nag franchement jot na tamit ñaa ñu mel ne yéen waa PD ngeen xam ne dafa am koo xam ne moo ko fi andi woon moom ko fi andi moom mooy heureusement ba ba ñu dem neen na ko fi jëlee ñu sant ko nag ci geste boobu lu tax ñu amnistie ko ndax ñeneen ñi am na ñeneen ñu nekk diggante 100 mètres diggante 2021 ak 2024 lu tax amnistie wuñ leen tam lu ñaan effet collectoral manam dara xeyna man ni ñaa bo ma ñewon fekk tay nga bañ ma wala nga jaay ma doole man na muñ parce que experience bi wala adi wala yi demé non mais du ñëpp mën loolu quand même àdduna du ñëpp mën loolu légui boo gisé borom bi ñaa ñun ñëpp ay jullit lañ dañuy wat li nga xam mom lañu borom bi eh, digal yoonte bi jangal ñuko bu jige borom bi yee rëbb ko yee fitna mais parce que kañ ye fitna mom moy le vrai problème parce que bo ye fitna dafa am lu ñal le effet collatéral leneen ak leneen da ci xew ño xamne bu du won lool non tay duñ ko def manam bu ñu ñu ci tëj kasso ñu soppi ko xëy buñu génné man lañu def leneen wala bi def nañ leneen wala seen ni def nañ mais du seen jikko ay liggéey kat lañ won dañ won xëy dem liggéey dañ leen def nangam ak nangam ça ne veut pas dire que da ngay daganal nangam wala nangam mais lool mo tax rek ñu tere ko ye fitna. yàlla ñu yàlla musal ci ay ñaar ak ay coono waaw mais il faut ñu def ci ay jàngat mais plus jamais ça mais jàngat yi mooy euh, nañ fexe ba buñ yeeti fitna ay élection képp kuy sénégalais ñaar dañ cee war a bokk loolu mu dugg ci bopp xam ne moo am ci àdduna bi ay élection képp kuy dem Sénégal dañ cee war a bokk amul da ngaa tegale góor jigéen amul dañ laa tëj six mois amul dañ laa nangam Pakistan ci gagné élection yi kaso la ne. ñaar lii kañ lañ koy comprendre ñuy yàlla xam ne li am suñu biir ay toppale kese la mais kañ lañ koy dépasser une fois pour toutes xam ne élection ñëpp dañ ca war a bokk bon ay parrainage yooyu c'est une autre chose mais képp koo xam ne représentative ñu ci société am nga droit bokk ci ay élection lii mooy dëgg mooy yoon ñu dépasser étape yi nga xam ne jóge nañ ci mën naa nekk ci biir kaso ba bokk ci ay élection bu fekkoon loolu balaa mën na suñuy réew kon problème yii du am parce que nit ki da bu nekk Djibril Kassam sax mën na représenté wu mais la fait que ñu ne liñ ko bëgg a xañ parce que dañ laa tëj nangam loolu mooy li nga xam ne ñoo ko andi suñu code électoral muy ay tappaleki caaxaan Abdoulaye Wade andi woon yenn yi Macky Sall ñëw dolli cere dolli jeex kon loolu il faut ñu dépasser étape boobu. nag conseil constitutionnel nag ñaar xam nga nag wax dëgg yàlla yéen lu ngeen leen di diineet yépp ba tey wu leen ci loi ne loi bii moom moom moo tax moom lañ teggi bu dee la cas ak Karim Wade du ngeen fi masandi loi buñ fa teggi bu dee exemple tey Bassirou Diomaye Faye ba àdduna tukki du ngeen andi benn loi boo xam ne bii wane ne warta mën a doon candidat waaw ah, xam nga nag déglu nag ay analyse yoo xam ne ay caaxaan rek lañ nekk ki tappale ay kuñ tas sa parti te duñ ñoom masa andil fuñ ko wax xam nga nag ngeen bëgg koo gëm nag wax dëgg yàlla beneen bi buñ fàtte na Amadou Ba kan moo ko ëpp doole ci ci état bi Amadou Ba dafa dugal recours ci ñaar mais parce que amul fenn fuñ ko mëna jaar ñaa ñaa war nga xamne nak buñ fa amoon virgule buñ fa mëna jaar buñ ton candidat wa kon loolu ay tiaxal la nak oh, wa ah, bu fekkee nak au lieu que ngeen war a déglu ngeen war a déglu ngeen di déglu 24 heures sur 24 luñ leen wax lu ay depuis loi ah wa wax yalla nak wa jere jef ziar na ngeen bu baax baax wa man na xam nga Euh, cas bi dama euh, buñ ci waxtaan tamit est-ce que duñ génne maanaam affaire ay loi ak yooyu nga xam ne xay na duñu ci mas a juboo mais ñoo ñëw ci logique parce que buñ ñëwee ci logique kese maanaam Amadou Ba yaakaar naa buy éliminer benn candidat conseil constitutionnel yaakaar naa Bassirou Diomaye fay lay doon franchement dëgg neexul tamit lañ dem ci logique rek ñu bañ a dem ci exemple farfarloo xool lim naan logique léegi Amadou Ba bu fekkee dafa am doole bay éliminer candidat mais Bassirou Diomaye fay lay éliminer tek ci Cheikh Tidiane Dièye bu ci mané bolé Habib ci sax bolé ko ci bu ci mané bolé sax ba ci Boubacar Camara bolé ko ci parce que ñoñu lañ jàppoon ne les éléments de Pastef te parce que ñoñu tamit ñoo fi am lo xamné mi ngi seen gannaaw bo xamné ne candidat buñ samp man lañ la samp nga sonal Amadou Ba léegi ban intérêt la Amadou Ba. jéggi fa ñooñu ñëpp di éliminer ji Karim Wade man daal loolu wax dëgg yàlla bëgg naa cee explication. non non euh, euh, ñaa andiwu leen loi nag Rose Wade bi dafa rëcc te ñoom gisuñ ko ñoom ñu jàpp ne Karim Wade tamit dafa rëccoon Thierno Alassane Sall moom moo taxaw ne lii da ngeen koy càmbar waaw mbir moomu noonu la demee Rose Wade ni mu rëcce noonu la Karim Wade rëcce woon Thierno Alassane Sall moo taxaw su ko ku souligné woon tamit Rose Wade ne am na passeport ak ñeneen ñi ngeen di wax ñëpp bu ko beneen candidat souligné woon candidat boobu dañ koy arrêté quand même du dem nag parce que boo andee ay preuve ñoom ñu faa jéggi lu dul maanaam étudier ko ci loi wax ci loi mënuñ leneen lu dul loolu beneen bi li ma li euh, ma laaj rek euh, Amadou Ba yaakaar naa ne buy éliminer Bassirou Diomaye Faye ñaa nag wax dëgg yàlla nag lay éliminer nag du attaque wu tamit ci Karim Wade quand même waaw Macky Sall de loolu moo ko ci teg boppam euh, boppam lay mere ndax moo doon am tànn troisième mandat waaw troisième mandat boobu pour mu jàllale ko il fallait que mu éliminer tous les adversaires politiques waaw def ko Karim Wade def ko xalifa Sall jàpp ne day yomb mais keneen ki mu dajal nag ah moom la ñuy woowee Ousmane Sonko waaw kon euh, lu ko dal moom moo ko teg boppam waaw coow rek la mais problème amu fi woon waaw problème morsi bi dara amul fi woon dara amu fi woon preuve yi ñu fi doon tegu groupe beeg këram këram ñoom euh, dañoo dajale lépp dem ba tribunal amuñ dara luñ teg ci taabal ji lan lañ mujj corruption à la jeunesse kon dara amu foon coow amu foon kenn waru ci woon dee gendarmerie la mbir ma waroon a yem kon kan moo ko teg waaw moom kay moo ñu andil coono andil ñu fitna xam ne dara amu ci woon waaw même bu amoon sax dafa war a egsi fii bu fekkoon am na moom am na leneen nu mu koy mën a defee mooy lan ñëpp dañ koo ŋànk ne moom day éliminer adversaire politique mu tombeeg day élection. li doon yoon ci xam-xam da nga koy téye ne lii nii kat da nga koy yóbbu ba après élection ñëpp noppalu nga wane sa grandeur waaw am ci yeneen fant ñu xam ne kat kii réew mee ko ñor waaw boobaa sax dañ ci yokk sa blason parce que borom xel yi ci réew ni dinañ ànd ak yow ci geste boobu boo après élection loo ci bëgg a def bu amoon laa la wax de noonu la waroon demee waxatuma ak bu mu amul.